ولقد دناك بقربي وحباك يا سيد الصادات جئتك خاسدا أرجو رداك وأختمي بإيمانك والله يا خير الخلائقين لي قلبا مسوكا لا يروم سواك وبحق جايك إنني لكم رمون والله يا لمؤلمي أخواك أنت الذي أنا صبيان لولاك ما كل تمر كلا ولا قل خلورا لولا أنت الذي من نورك بدر ابتشع والشمس مشرقة بنور باك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمعت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولخدناك لقربه وحباك أنت الذي فينا سألت صفاة فأجاب ربك لم تكن سواك أنت الذي لما توصل آدم من ضلة بك فاده وهو أباك وبك الخليل دان فاضت نار بردا وقد كمدت بنور السنايا وخذ العقل بالرئين دعاك وبك المطيب أتى بصيرا مبرا بصفات حسنك ماضيا يولاك وكذاك موسى لم يبعد متواصلا بك في القيامة مهتمين بما كان والأنبياء وكل خلق في الورى والأملاك تحت لواك لك معجزات أعجبت كل الورى وفضائل جلت فليست واكا نطق الزراق بسمي لكمولنا ودب حلبك هيما أتهك والذب جاك والعضالة قد أتت بك تستجير وتختمي بما كان وكما الوخوص أتت إليك وسلمت وكما الوعيد إليك حين نراك هود ويونس من بهاك تجملا أنا يبقى يونس هود ويونس من بهاك تجملا وجمال يوسف من ضياء سراكا نانا نكي يونتي بماني سرق ممن مدين جلا نكي كنتي محمد وببنتي وببناي وبني مسطين أعلى من هدى سامية عبد المصطفى مج مدينة وبصحبه صنع أكل المدارم والندام أنا تصب سيدنا محمد بري سحامة بيوسف قربه يا خير من قلبي وقنا له

li nuyu daam seen xarit maa ngi lay ziar ko béy yàlla xam na ni ñu ba jàmm dama ne man damay dem ba tourné doog fee jaar waaye ma ñëw ba fii dégg way yi ne naa fi jàkk doog def ndax daam moom bisam ñëw li muy bëri bëri doole Moustapha du toog ko ko doon mu baal la tar bi ci Yuusufa neex baat bii ci daawuda nguuru sulaymaan ga yow yaa ko dénkaane yoneen balaa dem day déclaré ak ñëwam ndaanaani ndaanaani yow dong yaa leen may lu ñuy dam yal na la yàlla fay ci barke Seyduna Muhammad boo ko tantalee raw nga boo joxee ci yonen raw nga ay waay booy tagg yonen ci bee raw nga buñ koy tagg ngay sitt su raw nga ana soppay Seyduna Muhammad yeneen Sulaiman ga yow dong yaa ko dégg balaa dem day déclaré ñoo daanaani daanaan yow dong yaa leen may lu ñuy daan Maodo maam Maodo Malick maam Maodo yaa ma xamal yéen soppe mawdo def loxo jàngal bayu alaaji Mansour ya Muhammad yoon Ya no family, ya no rak ci jikkoom kenn desul ku ne rak naan yaay mburu ci waawnu alim yaa ngi ñëpp la jiiñ weddi diine seeni galañ may kenn desul ku ne rak naan yaay mburu ci waawnu ana soppay sëriñ Babacar wattul ma jaani ñangoor dangar jëlay gën a foor wattul ma sëriñ Babacar bu la laalee dañu lay sool ku sëy di bay di sa waay nga kuy cumbi kaay loo ngi ragal ak di sa bañ lay feelu bay ak borom dunu maas bu jëg ci may gudu moon ndax ku kër bu ko sëf Ndoro meeru ana soppay Serigne Babacar waaye loxo ca kaw waay mu ne ku bëgg Serigne Babacar lo ana soppay Baay Jaami ana soppay Xaaj I'm so paid.

bàyyi fi jiw yi bu ñu sàggan ci baba ana soppay mam bàyyi fi jiw yi bu ñu sàggan ci baba yàlla bur bi kun yàlla sëfa bu ñu sàggan ci baba ci barki sëñ baba bu ñu sàggan ci baba ana soppay mam Musa ye bu ñu sàggan ci baba يا رب البيت أنا خريت بيدام إلي بني سكرني بابا أنا صبي بيدام إلي بني سكرني بابا أنا جيجيني بيدام إلي بني سكرني بابا كتير نبض برم دارجي ana fa bay soxna mare bulu sagal ci bawaka ana fa bay soxna mare bulu sagal ci bawaka ana fa bay ajaratu maria bulu sagal ci bawaka ko fitam yana ziyaare bulu sagal ci bawaka bay bi sagal ci bawaka bay bi sagal ci bawaka bay bi sagal ci bawaka Thank you.

مستسيد الفرصة سيدات قدس المصطفى يونون رجال يونون رجال يونون سبحان الله يونون سيد الحرب يونون رجال يونون Bye, I'm good. Oh, the guy.

amul ku mel ni sëñ Babacar lébu les antiques qui sont de la Zamango ñu jaari ñoo ñu jaari ñoo ñu jaari ñoo ñu jaari ñoo ñu jaari ñoo ñu jaari ñoo xam ngeen ni lii bu ko bàyyi am ni xam ngeen ni

si jubali nga mu daaw jubali mu daaw bi si Bamba kan kay wàllu lu la ñu yemeen bi moo tax loolu jarul laal loolu jarul laal si Bamba kan la wàllu lu yemeen bi loolu jarul laal jarul laal si Bamba kan la wàllu lu yemeen bi soppay Serigne Babacar Sy ana soppay Serigne Babacar Sy ana soppay Serigne Babacar Sy wa khalifa kulli ahmadin wa maliki din wal hasrani wal irfani Serigne Babacar jubbi jani abuna abu bakri wa indana fil qalbi radina bi shaykh Serigne Babacar

di kontaan bu baax ci tabbatar da rigar yin a wani mawai da su zai yin nan daanaka li ñuy dem ci ay xewee sa ngay daa bëreetu moo tax gars yi mënuñu ñoo xam te waaye moom bu doon wax boo doon def fii ba bañ a tudd defe naa gars yi duñ teel ndax dañuy nekk macha allah yàlla nañu gudd sama yokk xam-xam ñu nuyu suñu bàyyi xalifa bi kàddu gi ñu jotee maa ngi am waaw ku ko def rek ñu ko ñu ko rek ñu ko ñu ko defal guddi ñu pare ñu ci kër gi ñu bokk lu ci am ak kër gi su ko defee rek ñu ko defee ba ñu ko ñu ko أبونا أبو بكر dellu ginnaaw ku fi nii ma woy bàyyi si kër ma ci gan si ma toog. ma xam ne bu delloo mel mu ne di Sëriñ Babacar. dugal ci biir ban ma sa baxoole sa xol fees nga dellu ginnaaw. ne ñëpp taxaw. ne ma ñu bëre taxaw. ñu ne ana Seydina Muhammad. ñu ne ñu ngi ci biir suuf. man nag am na seetu nag ci daani ñu ne mi ngi ci biir suuf man na leen am na seede la xaasi Maalik ñu ne mi ngi ci biir suuf ne man leen waaw kay kon góor ñi boo ko defee ci biir suuf bu la laajee nga am foo ko teg ñeel ci gën a yéeme mooy biñ ko ñaanalee ba ñëpp tasaaroo ma dem ci sama saal tokkaloo borom bo ne kaare du ko wëngal du ko jëngal faamu ko teegoon daaw wala koy jag waaye dafi nii ma way sin Babacar ne ma jaante moom ne ko فتلك سمت هدى ومات محمدا قالتي وفي قالتي يحرق تربى على هاتين إرثا ونفأة كريما وفي هاتين رجلنا هدونا ومجابه الأسقاب من قبضة السر حسن خير إن كان حقده لدينا فنيا في اللباس من الخير رمى فأصاب السيد كل إصابة فلم يبق إلا أن نقابل النبي سكري صنعته تغني المردين وجئت بالمؤمنين عن السير يمين فلا أنسان door Sen

war buri baay sanga nak tukul xubama so def ñay moro ci bayni ro gay me dana do seen moro ñu tayira ye mandal ga karce pu dar defe ñu tayira ye mandal ga karce pu dar defe bay fonk daayira dafa nu raw ci bay ak tariqa bi dafa nu raw ci bay fonk métier yi dafa nu raw ci bay dem ci waawanoo dafa nu raw ci bay تور مكندا أتباك بند أي الله مدرب تور نجل بند أتباك بند أي الله مدرب تور نجل لقد يلا دج بالسماء قد أحسنتموه برسل يا الله من يديكم تجمعين borom daara ji

baki Stay my way, say my business Say you Mustafa, you put the time Karika, say the بين المشرق والمغرب بيتك أعرف رغبتك تحفظ صوتك Yeah.